leeral say mbir ba mu leer nañ. ak foo nekk. foo mën ak moom ci téléphone bi rek. sa aajo euh, mu toll nii bëgg naa ñu waxtaan tuuti parce am na ci loo xamante ne waxoon nga ma ko ma gis ko ñu jëm ci làmb ndax euh, bokk naa ci ñi fi ñi fi ki fi ñëw ñu toog waxtaan nga ni ma Modou ak Ama du am deux mille man la foo ko teg nga ne ma du am man la jot nañ avance te biñ jotee avance ñaari fan lañ ci teg ma ñëw fi nga ne ma du am Franc Bébé Saloum gis naa li nga ma ci wax bari na loo xamante ne wax nga ma ko ci làmb ma muy ñaari yooyu rek bari na loo xamante ne wax nga ma ko ci làmb làmb jub si nga ne ma ñaari combat yi diw mooy daan tey loolu lan la ak làmb actuellement nan nga ko gisee ñu ngi daan làmb day dem sax ci huis ban gis-gis nga ci am. waaw li may wax rek mooy ñi ku nekk lu ko yàlla may. ku nekk lu cër bu ko gis-gis yàlla suñu borom ko def si doomu aadama. donte ka nag ñi ku nekk ñu ko yàlla di maye. mais jàpp nañ lu ñu la wax du dañ soob suñu borom buñ si dogoo rek yàlla suñu borom di ñu di ñu si loolu nag martaba la ba pare baatin la ba pare da nga koy doxee di ko waxee di ko jëfee. làmb nag fu mu jëm norta neex kenn mm-hmm. ndax feebar bi yàq na lu bëree bëri mm-hmm. dañuy bañ mbooloo te làmb ak mbooloo ñu ànd mm-hmm. coole mooy bari mais làmb muñ te nekk huis mu la war a dugg si làmb daw jaar ne ama bala war a dugg daw jaar ne bala dugg daw jaar ne bu ma jee dugg bu ñëwee ku ñuy waxal kan la ñuy communiquer parce que Modou Lo ay supporteram ñooy tax mu yokk mu gën a am jom. Mm. Ama Baldé ay supporteram ñooy tax mu gën a am jom. Ama bu fecc fecc fecc ba talal loxoom waa Pikine mm. ñëpp jug. Mm. loolu am na lu muy def si moom. Modou Lo arbitre bi mu létt ak mbër bi def ay feemam. waa parce que ñëpp jug. loolu am na lu muy def si moom. léegi loolu bu ñoom rek ñoo ñu si jéem ban xorom lay am. kon yow ci wii kulóor. yàq làmb du jëmale làmb kanam du koy delloo ginnaaw lay doon te ku ko def benn du ñaar ak bu benn comment wii kulóor du ñaaraat te lamb yooyu ay lamb ñeex la xam ne Modou Lô Ama Baldé loolu benn affaire la mm-hmm. loolu benn affaire la yàlla na yàlla def feew bi jeex ba lamb ju de egsi ndax man moom lamb ju ma bëgg la lamb ju ma neex la mm-hmm. ndax euh, saison 2021 bi lamb yi mun naa gën a neex daal bu soob yàlla am nañ si yaakaar bu baax a baax mm-hmm.